mais dañuy làmb. waaw mais lii moom ah lii lépp ci mais boo yoree artiste mel ni Sidy Diop le centre du peuple le soir du peuple si si bisi toll nii ñu jugee dëkk ñëw dëkk jugee région ñëw région mais boo ñëwee da ngay làmb dañuy làmb nii de barke sëñ Bamba yàlla ñu daj. xam nga laam da ngay ñaan yàlla daj yàlla lañ daj. mais doo ma yëkkatil tuuti cap bi rek. non non non même ma ñu tur rek. <laughs> ma rek. 6 000 problème nee tey daal bés bi lépp li nga xam ne bés bi laaj na ko dañ koy def Sidy Diop woote Dakar Bercy confirmation ñii ne màgg na ñii ne màggul tey lañ la war a wane. ndax Syrie màgg na wala màggul. boo xoolee léegi di ngeen gis. di ngeen xam ni Syrie màgg na mais li ma la mën a xamal laa ba xamal la mooy Syrie dafa nekk suba dell ragalul. Buuse Abdou Karim Messi Baye Niass Sibyl problème Souley Awalaay ak ñeneen ak ñeneen awa ama génne gi maanaam dama bëgg Sénégalais yi xam ni suba dell lu école centre de formation la. bu la ba bàyyi la boo génn yaa raw Messi. suba teel moo fi ne quoi. léegi la la bay suba nga génn tey si nga génnoon tey carrément tey si soo bis soo bis amatul. Ah, ah, ah, kan moo eh, am na ñeneen ñu fi eh, am na ñeneen ñu fi ne. waaw naa kan moo dee ambiance du Bass Thioung. waaw waaw Bass Thioung moom mu ngi ambiance. nangu nangu nga. waaw ñëpp na. Ibrahima na. waaw léegi nga bëgg yow lan. ñeneen ñi nangu. Sidy ka nangu. mais yow ñeneen ñi naa ñëpp <laughs> non ah. nangu naa leen. mais si c'est le centre du peuple. comprends nga fii Médina la dëkk bokkuñu dëkkuñu fi mais Sidi moo la ñu fi cër parce que c'est le centre du peuple monsieur la maire Bamba Fall Sidi Diop la àndal parce que il est le centre du peuple El Hadj Keita mu si ginnaaw di jouer yàlla réussir yàlla réussir bu baax baax parce que bu réussir rek musique Sénégal moo gagné comprends nga mais Sidi jamono gi boo bëggee dégg-dégg heure bu duggee si concert yeneen artistes yi xam naa leen tuddee levez votre sadoise. donc dañuy ramasser les copies. yow déggoo ma de wallaay du seen morom yéen journalistes yi boo leen nekkul ay naafeek xam ngeen ne du morom benn booy yow ay booy yoo xam ne boo demee boo demee EDK boo demee euh, Osan boo demee Super Marché boo demee Luuma doo dégg sa son yow mos ngaa dégg sa diggante yàlla dox sa koñ gis benn booy buy woy ay ay woy booy booy. yan booy. booy yi non yan booy. ah non mais ñan nga jàppe booy ci musique. musique am na ay booy. ñan la am na wallaay du jeex. non non man xam nga lu ma bëgg. waaw mais mais mais mais mais mais booy mën nga am booy booy yow eh, eh nga ma Sidi gaynde la te gaynde du ànd ak gaynde gaynde du ragal kan la. mais El Hadj Kayda El Hadj Kayda tey. booy la El Hadj Kayda tey barke Serigne Bamba. Euh, boo ko doon comparé tey Ousseyn ngay comparé rek. <laughs> nee na El Hadj Keita la El Hadj Keita carrière Ouzin Keita la yor wallaay moom ay morom lañ nekk c'est que Ouzin daa bar rek moom barul daa bokkul quoi Ouzin la Ouzin la réew mi gën a xam sax. kon tey defante la yéen ak yow la wax ni nga bëgg a dëggal ak yoo xam ne nga dof bokkul. Barça Barça taay Robin kii la de. Euh, mooy Maiga la. waa léegi Barça nga jëkkëral Liverpool. mais Barça léegi Rido Maïga la Liverpool ko mën. non nañ ñaanal adresse yi jàmm rek nañ ñaanal Siri jàmm ñaanal El Hadj Kayra jàmm xam rek parce que tamit. fii soo biso quoi dañuy foo quoi du dëgg parce que kenn ku ne sa njaboot da doon neex dëgg nag barke sëñ nee Sidy dëggee nee. waaw léegi ànd bi mën a xam lan ngeen ci def. ban xeetu cuuraay la parce que bii moom musuma xeetu cuuraay bu mel nii bii musuma ko. waaw ah, maa ngi képp da ngay daw rek. Ah te jàmbaar yaa ngi si ginnaaw toog ba Sidy dugg seen i tulu garaaw te damay laama waaw man tey suba am na am na ay affaires yoo xam ne jot nañ ko fee xëm mais affaires yi affaires yi doy na waar de. 54 régions laa dem. ah weesu naa Sénégal. xam nga Sénégal 14 la. dem naa laal naa sama Mali jël région Mali yi jël région Burkina yi. lépp boo ko boole bi 54 booy yi. dama leen eh dama di duma de. kon affaire yi daal faw nga am cumbukaay boo bëggee def. non en tout cas ñun daal suñu adresse mooy ñor bu pont jam bu ko laal. léegi yow kan ngay boyal fii. dimbali waaye koy boyal fii El Hadj Keita. El Hadj Keita El Hadj Keita kan. ah yow yaa ko fi wax léegi nga ne moom carrière ru Ouzin Keita la yor. dër moom dëru. El Hadj waaw carrière Ouzin Keita la waaw mais nag champion nag nice parce que moom booy innové rek nice quoi waaw nice xam nga xam nga showbiz lii neexal ay ruube. ay rubé may neexal showbiz mais après kenn ku ne tamit da nga yóbbu sa kër quoi du dëgg da ngay ñaanal jàmm rek di ko ñaanal tawféex rek bàcc sëriñ Bamba Mbacké xam ni moom moo war a xamal musique Sénégal mooy gagné quoi du dëgg mais daal Sidy guddi gi sa la sax bi boobu xam nga si dara si kanam naa la a kaay xool. waaw mais maa leen di fay dinañ ziar yéen ñëpp di leen jox seen waaj waaj comme daf rek ni ma koy defee. tey ku wax artiste wax fans waaye rawatina nag ki nga xam ne moo ci sonn mooy président bi donk tey naka ngeen euh, dundee bés bi. waaw kontante rek ak mbégte ndax parce bu ñu ba Sidi tëgg ak Iba Mar. ñëw nga xool mbooloo mi rek sa xol day sedd tey jii boo wëree sa bët boppam daj ndëgte rek nga yor da nga naan bu fi yemoon tey mu neex Medina dañu bëgg siir yi dañu ba siir tey rek wane nañ ko. Sidi Diop ñu koy woowee le golden boy waaye man tey dama naan ko Mbappé parce que tey ku xool ni mu def stade bi da ngay xam ne très sincèrement bu nekkoon match la ma ne mooy seen Mbappé li muy dribble xajul ci gaay donc tey naka ngeen def ba réussir bés bu mel nii. mais sant yàlla li nga wax rek Mbappé Mbappé dafa jaar fi mu war a jaar nag jaar fi ay magam jaar mu ñëw ba nekk numéro un ma numéro un la si man numéro un la si ñëpp way ah Sidi kan moo ko dàq way ah man da man man man waxuma ne Sidi kan dàq naanaan mooy koo xam ne loo ko way loo mu way ko te Sidi yàlla da ko may loolu xoola ni fi nekk loolu dëgg la loo ko way loo mu way ko te du si xalaat bu xalaat du réfléchir ne ko wayal ma lii rek fi mu toog la koy def et ce qui me plaît le plus dans sa mooy que dafa ñëw imiter nit ñi won na leen que mën na naa fu ne ñëwaat ci ton boppam ba pare demaat feneen si bu ñu xoolee singalam bu mujj bi Saalum Saalum mm. donc beneen eh, eh, euh, émotion la lay dundaloo xam yi dañ naan na wayu ñëw wan ne wan naa way wayi ñëpp génn wayam teg xam nga Sénégal duñ seetlu ndaanaan ndaanaan mooy ki nga xam ne loo ko loo mu mu wayal la ko Sidi ko woyee si reggae mu ñëw si reggae Furana mu ñëw rap mu ñëw mbalax mu ñëw ngoyaan mu ñëw lool boo ko woyee si jàng yi sax ngi àcc kon Sidi buñ ko considéré mbalax maan mais nañ ko considéré artiste artiste moo fi def lu kenn deful tey lan ngeen yëbe Sidy lan lay indi tey lu garaaw xoola xoola scène bi non gis naa scène bi mais tey Sidy dugg seem la laa bëgg en tant que président fan si xam nga ci dara dugg si bu garaaw ah bu yéeme bu ñoo xam ne bu duggee bi damay ragal sa ay xale xëm bi quoi ah. ndax parce que daa mën bis. waaw daanaka daanaka Fallou wax na lépp. maa ngi tudd Pape Modou man maay porte parole aussi di famille maa yor kaddu gi maa leen di ziare di leen nuyu di jégalu ci bi di wax ni kontaan rek ndax lii moom bisu mbégte la quoi ni ko gars di waxee lii bisu mbégte la lii dafa neex Sidi mooy la Mbappé de la musique sénégalaise. ça se voit que ne màgg na booy Sidi ngeen doon wax léegi xanaa grand Sidi ñëw na. waaw Sidi màgg na parce que ku gis ay wayam depuis boobu ba léegi xam ni mi toppee Sidi ah génne yëngal génne cag-cag génne jaagu mbaas génne génne cas bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon Sidi mi ngi liggéey ah waaw mu ngi liggéey bu baax a baax baax te nekk na loo xamante yi nii tamit Sénégal yëpp teg nañ seen bët ñëpp xam nañu Sidi mi ngi liggéey leen daal moo fi am mooy iñaan ak soxor ah. bañ koo yéen a jàmm daa am foo bëgg a laal bu baax sax fan la xam nga fan laa bëgg a laal ah. gis nga àdduna boo bëggee boo bëggee am dara da ngay gëm sa bopp Wally Seck lu am ci musique xam nga lan moo ko may daa gëm boppam. ah kon yow. ah su ma juumul maa ngi ñëw Sidi ak Wally Seck Wally Seck daf koy ñaane. non non Wally Seck magu Sidi Diop la dama ne la Wally Seck fi mu jaar ku fa jaar tàq ban. Uh-huh. Wally Seck daa mbapat gars yi di ko sanni xeer muy gérer di gérer di gérer ba yàlla may ko lu mu am. mais Sidi ak Wally neexul. bu baax neex. Ah, non xam nga xam nga moo yàq game ndaw yi artiste ndaw yi ñoo yàq ñoo yàq aar bi. man dégg naa Sineek Waly safara ak ndox la. Sineek Waly comme àjjana. Ah. war waaw maa ngi koy a de passage may sa bigé may sa bigé maar aju naaw nga ne seen doy càkk dem ba ca Lambaay. déggal lii doo ñun ñun farama ren. Ah. yaay sunu mag Marie la safte ma question ci artiste ndaw yi. waaw léegi nag léegi Sidi bu ma jugee Sineek Waly. waaw léegi Sidi ak ñi waaw comme li may rek xale yi nañ liggéey. mais tey moom daa juum fekk si leen dóor leen loolu ñaaw na. fekk si la sa tëgg ba pare dóor la. daa juum <laughs> nee nañ ko ñun ñooy Mbappé ñun ñoo moom Medina. Ah. barke yonent bi dooy caaxaan Medina ñun ñoo ko moom. ñoo fi njëkk a teg concert mu moo ngi nii dama bàyyi ma waaw. billaay wallaay taalaay Medina ñun ñoo ko moom El Hadj daa juum. kenn du xeex ak Mbappé Mbappé daa gaaw. man dégg naa El Hadj Keita fee boo sànni mbaa mbaatu mu gaaw mais jamono ji ñëpp xam nañu Mbappé moo xew ci moo moo xew ci àdduna Mbappé une deux trois minutes gars yi dugal na match jeex na waaw Sidi Diop il a il a remporté xoolal lii lépp ngi nice waaw mais ana Tarba Mbaye. waaw waaw mais Tarba ana Talla naa mu leen benn woy. eh Sidé. non tarba foog mu liggéey. xam nga bu la may tarba eh, eh, tarba daa mën ma man man rus naa nekk doomu géwal géwal ci ndey géwal ci baay ah munu ma munu ma def der. ah yaa ne tarba munul. munul der waaye ay woy dëgg waaye boo ko bëggee dëgg ay woy dëgg. da ngay déglu Sidi Diop wax dëgg na mais tarba it mën na. tarba lu waa léegi wax ma tarba lan la fi woy. Ah, leen nit ñi. lan la waa waa Sénégal yéen laay question lan la fi Tarba Way téye leen ko téye naa ko ku ci am waaju baax na nga ko téye loolu mooy lan boobu ba léegi génnaatul dara. Eh, eh, Sidi Jéeri la fi wax rek. kan Jéeri la fi wax Fassala Siga Ndiaye Marcodou Birane Ndiaye ma Ndiaye Jemeg ma Ndiaye ma ja Toubé xaar yàlla Birane Ndiaye jëlee Abou Sall <laughs>